mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da ngaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum diabète wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyé ba mu set kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor kàttan bii xamante ne wàllum kàttan moo ci mën ci woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi mooy sama waxu tey xaw ma terrain bu baax xaw ma terrain bu bon waaye am naa droit sama snap bi conseil si ay nit. billahi wallahi taalaay am na ñu jëndoon terrain ragarose ma xam si ay nit ba tey jotuñu seen i kayit jotuñu seeni xaalis am na ñu jëndoon terrain toi toi pël boobu ña leen jaayoon terrain ñu ngi prison tëdd man man duma fen nax si naa peur yëpp taral naa leen. yaa ngi fii dara du fet sina peur yëpp teral naa leen lekk nañ sama ñaq te lekkuma si kenn ñaqam mel ni ñaa moo si defal mooy ñëw yëkkati mbasin jox ma dara waaye sina peur yëpp teral naa leen kenn amul fu ñu xasee griffe barke Serigne Fallou Mbacké sànkar dañ koo fay ku ko fay mu sinaab su ko griffe na ko kaay ma fay la nga sinaabal ma lii mu sinaab ko dañ koy fay mu liggéey waaye moom ki muy liggéeyal miinu ko yéen miini nga xamal daal mooy lan teere yi ku ko jënd di nga mere sa bopp barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke ay waxi dof ak waxi nangam nangam ku jënd teere yi di nga mere sa bopp man déggoo li ma la wax tey Sankara dañ koo fay rek kaay sinaabal yéen saytaane yi nekk fii di jaxase di ruubee rek Sankara dañ koo fay ne ko kaay sinaab mu sinaab kaay publicité la mu publicité la kaay sinaab mu sinaab mais yéen seytaane yéenay ruubee rek teere yi ku si dugg tamit di nga sa bopp ndax tey tey Sankara toog nañ man ak moom Gambie ma ko Sankara carrément li wax ni du ma bàyyi ma fen ma ne ko bu leen jëlati yenn nit ñi xam nga yéen ay exemple ngeen tey yenn moodu moodu yenn faatu si la ñuy basé ba wóolu leen ba tax ñu jox ñooñu seen xaalis te Sankara Mbaye miinul kooku sax miinul miin bu tax kooku noonu léegi tey kooku su lekkee xaalisu jàmbur yi kuy ami problème Sankara la ñuy wax yaa yaa yoo ko tax ñu xam ko ñaata nit ñoo jaay di ragarose ñu ngi prison ñaata nit laa gis ñu ngi jaay ay nit terrain jotaguñu seen kayit ba abadan daay mi naa jotuñu seen kayit photocopie lañ jox ay photocopie photocopie photocopie doo mës a jot kër nit jaa nit jaa nañ fi terrain bu ñëwoon ma kayit ma ko lii baaxul gëmu ko barke Serigne Touba Mbacké moo dem ba Sénégal woo dama girif doo nit am na keneen koo xam ne mu may seetaan cinq terrain lañ ko jaay noonu la pété quinze millions jotul ñaar dërëm xam nga ba pare lay jaay ba pare jéem naa tëjlu colomitif la tëjlu la xam nga léegi tey tey Sankara cinéma bu la yor dañ koy fay kaay publicité la publicité xam nga saytaane si nekk naan waa Sankara Griff ngay classe Sankara non classe suma kenn parce que man soxluwuma buzz man damaa tedd sina peur teranga laa seq ak ñoom teranga laa seq ñoom te xam nañ loolu ku si am ngor ku si am ngor ku ne di nga xam ne Griff teranga la seq ak ñun xam du classe suma kenn mais ñi ñi terrain yooyu ñuy wane di jaay nan nit ñi dem jël seen xaalis teg ko fu leer lu leer ñi jël seen xaalis teg ko fu leer ay ay waxi dof ay waxi du ma toog ay léegi ah damay wax lii dëgg man seenaa bëri teranga laa seq ñoom kenn kenn moom fii defal mooy ñoo def si teranga yëkkati ay yëre mbasin di ma ko jox muy ñaar teranga laa ñoom tey suñu deful lu dul yoon dama leen koy yox na ne leen ki te xam nga Sankara dama ko conseillé dama ko conseillé depuis euh, euh, Gambie bugg mën a ko Sankara bul di nangu ñu lay utiliser si yenn yi parce que yéen dafa am ñu ñu ñu ñu leen di bàyyi xel xam nga man damaa tedd du ñoon man loolu may gondi li ñuy wane noonu yooyu man gondiwu ma dama dama koo tiima tiima tiim ba doyal dama see lekk lekk lekk ba doyal xam nga nekku nekkuñu si nekkuñu si at bi di di caaxaan jël affaire yi def ko ay problème rek du problème man a Sankara du problème c'est mon frère du tey su dëgg jotee da ngay wax dëgg bi jeex na Sankara dañ koo fay ne ko kaay ndax su ko fayul woon suñ ko fayul woon du ñëw ne mu ngi wane ay terrain li may wax xam leen ko bu baax suñ ko fayul woon du ñëw di wane ay tere day liggéey dañ koy fay fayee journaliste wala fay si youtube yi ñëw leen publicité ma wala ñëw leen loolu loolu mooy liggéeyam pourquoi man man ko su ma koy plainte ma koy plainte mooy benn côté tey su ko ki ki kii su dóori nit ñi ku ñuy wax sànq yaa xam ko man loolu laa koy bañal ëllëg moo tax bañ toogee Gàmbi moo conseillé ko loolu waaw ma conseillé ko noonu naa fekk yeeg saytaane yeeg uskure ñoo fi nekk di wax waaye ñun suñ gisantee xamante nañ xam nga xamante nañ ñoo bokk nekk Amérique fii suñ gisee ñooy dundandoo ku si mer nag je m'en fous jàppal ne kii dëgg lay wax buggul ku ndax buggul ku ndax moodu moodu yi wala faatu faatu yi waaw ndax dañuy liggéey bay bëgg dee topp nees bi di dang-dang yi bay bëgg a dee ñii di dajale di jënd am yaakaar ñu xëy ne këndëng dóor leen li ma gis si cas ëpp na cinquante personnes te li ma bind si samay synapse su ma ko doon photocopie du ko dugal kenn xamul mu toll. kon Sankara sama frère la te bugguma ko koy dugal si ay musuba naaru laay saytaane siy wax di wax rek ngir fa ngi wax Sankara la yéen rek non non maanu leen man yéen laay sauver Sankara dañ koo fay kaay publicité moo publicité su kooku lekkoon cent millions jàmbur gars yi dañ yaa ko wane woon kaay yow yaa wane woon kii wan ñu ko ah. that's it àdduna noonu la fair play <laughs> fair play gaaru waa yooyu yëpp jaru ko waxi dof ak ay duñ topp waxi dof ak yëpp ay jaru ko xam de xool leen këyit boobu loo xam ne ay problème terrain boobu lu yàgg la laaj Cheikh Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Cheikh Yérim Seck sax wax na si Macky Sall say interprétation te mënu si dara ñoo la dem leen Chérif ça va nanga def yaa ngi ci jàmm ça va bien billaahi li ngay wax fu leer nga ko teg parce que foofu noonu ñuy jënd terrain yooyu fi ñu wane billaahi wallaahi taalaahi fa la ñu am terrain ñaar benn ba sax au moins nee nañ ñu gaaw leen ngeen def ci dara balaa ñu koy ngeen koy pertaat comme ni ngeen pertee bee perte ko lañ de parce que dañ koo jaay jaay ñu ko dañu koo jaay jaayaat ko keneen kañ ka jaay nag ñëw def fa néegam jox ko ab gardien am toog fa ñun fekk ku euh, lii ba ñun ñoo ko fay nuñ koy waxati sax collecteur kër gi ñun ñoo ko fay joxe suñu mille ñu collecteur collecteur ñu kër gi moom mu ñoo tabax fa néegam comprendre nga nii lañ ko perte nii may wax kon lii ngay wax nii fu leer nga ko teg waaw fu leer nga ko teg te côté boobu Sankara doon sinaab démb la côté boobu la mais nii lañ ko pertee ndax dañu ñu koo jaay jaay ko keneen déggoo damaa bind bind bi doyut ma ne xaaral ma audio la lu leer nga wax de ku fa jënd ñàkk nga ko yàq nga sa xaalis ndax ñun beneen zone bi ñu dese teeree te ñu naan ñu gaaw leen ngeen def ci dara sax beneen côté bi la dama xamul foofu nu mu tudd mais beneen côté la bokkul ak fi kii doon filmer démb dara wóoru ci dara dara dara da cee wóoru nga indiwaat ko gàcce ngaa laa ma yow man soxloo ma ci yow dara dara soxloo ma ko ci yow ndax dama tedd dama tedd mais danga ma gindi danga ibbi samay bët danga ma yedd ci àddina yedd ma ci ci ci ci ci doxalin yedd ma ci jëfin yedd ma ci xippil say bët te xool te gëm sa bopp te yàlla ak yow a tax yow ku la ñaanalul waru mën a xarab girif dundal loo dund doyul yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar lépp loo bëgg lu ne suñu boroom yal na la ci yàlla taxaw te conseil bii nga ñuy jox yedd yi nga ñuy yedd yal na gën a sax yal na yàlla gën a wéral cër yi gën a wéral baat boo xamante ne nii fu ñu toll ci àdduna dinañ lay déglu mën cee génni ndax nag réeroon nañ de yaa ñu gindi yaa ñu gindi voilà ponkal yéene leen ko jàmm moo leen di jàmmal deux cent mètres VDN bi boo jógee nii si VDN bi nga jaar ñëw fii vingt voie vingt mètres la. Uh-huh. dugg sama koñ. si sama waa koñ sama dëkkandoo yi ñëw leen. mbay loolu de leer na. lii nag lu leer la kon. fichier bi laay jël yóbbu ko ñu kale ñoom bu ñu ko dugalee jàmm.